nuyu nañu leen rafetlu àndin beek la meilleure chaîne di net la de des leaders Senbuzz TV mbokk yi jërë ngeen jëf ci korité beeg safo bi muy doon mbégte kontaan saa su ne équipe bu Senbuzz di daloo ak yéen ci ay jotaay yoo xam ne yu ngeen di soxlala ci seen dund tey ñu fas yéene feggoo ak les grands papes et cheikh di ñuy yëngatu ci aada rawatina ci musique senegal di ci bay waar bu am solo la grand pape et cheikh ñu gën leen a xam ci group boobu waaye ki ñuy jokkoog tey mooy le grand pape moom la ñu feggoo euh, groupe Senbuzz ñu ngi lay nuyu. maa ngi nuyu internet yëpp waa waa waa Senbuzz yëpp. ñu ngi kontaan vraiment si seen teewaay fii di am mbégte lool di ñaanal di ñaanal euh, Senbuzz yàlla def ci succès bu kawe seeni i njor mm-hmm. waaw. merci merci beaucoup le grand la grand cheikh ñu gën leen a xam ci kuréel boobu di yëngatu ci musique di mm-hmm. les grands pape et cheikh. Mm-hmm. Sénégal ñu bari xam nañ fii grand li waral waxtaan bi bokk na ci li gënoon a fës ci actualité semaine bi ñu génn. Mm-hmm. muy kenn ci ko xam ni wëllëre la ci yéen di Ablaye mbay génn àdduna bi mu génnee àdduna léegi. mu xaw a yàgg famille génn am loo xam ne ñu ngi ko doon réclamer ci seen dundin dundin boo xam ni gëm nañu ni am na loo xam ne manqué na leen jamono ji bala ñoo dugg ci loolu lan moo nekkoon yéen seen relation ak Abdoulaye Mbaye rahmatullahi alayhi comme ni ñu koy waxee. ginnaaw bi ci ñu lay ñu nuyoo mbokk yi ñu ngi wax ne Abdoulaye mbay ak Pape ak Cheikh ak Abdoulaye Mbaye ak Pape man ak Abdoulaye mbay ak groupe kenn ku nekk. da nga amoon benn relation bu spéciale ak Ablaye mbay man rawatina man fi fi ngeen jaar léegi suuf fii lañ doon yendu kon man ak Ablaye mbay ñun ñun musique bi boole wunu musique bi xëy na moo tax ñu xamante bokk waaye beneen relation la tissé man sama diggante ak Ablaye Mbaye parce que ñoo bokkoon di yendu bu guddi jotee aussi ñooy bokk di nekk bu ñuy jouer guddi aussi day ñëw bu ngeen xooloo suñ ñaari grand théâtre yi ñu mos a def yëpp même tenue yi ñu sol sax ñu nag Ablaye mbay ñoo ko niroole cela am na lu muy tekki man su ma doon def sax répétition su ma ñëwul Ablaye mbay mooy mooy mooy répété samay morceaux pour wax la euh, euh, Ablaye Mbaye du woon affaire wu musiciens daje woon ay Ablaye Mbaye sama frère la dama ko jàppe comme sama doomu sama doomu bàjjen ndax moom yaayam Fall la sant ma sant Fall man loolu laa jàppe woon Ablaye Mbaye jàppewuma ko woon presque non voyant moom ñi man ñi nekkoon ak man xam nañ loolu parce que man Ablaye Mbaye li ko yàlla mayoon ci ci ci sensibilité ni mun a xàmmee ni mun a ràññee ci yenn si si yoolu loolu man daf ma dépassé woon moo tax bu ñu mësaa wax rek ma ne ko Ablaye Mbaye yow mi am na leneen lo leneen la daal du woon du lii rek quoi Ablaye Mbaye bët yi rek ñoo nëbb waaye leneen lii lii gis moo gën a fort ay bët relation ak Ablaye mbay du woon relation bu rakk la xarit dëkkandoo ak métier bi ñu bokk. très bien euh, ban gis-gis nga am walla ban réaction wala nan la la def bi nga demee ba gis ni yaay euh, yaayam di waajuram bu jigéen génn ci réseaux sociaux yi di àddu ni am na loo xam ne ñu ngi koy dund ci ay tolof tolof ci seen dundin ci famille bi nga xam ne moom la fi laay mbay euh, bàyyi. benn kër boo xam ni tabaxoon na ko mu amoon ci problème ak ñi nga xam ne ñooy waa DSCOS dili sabab coow juddu ci seen famille ak fitna boo xam ne ñu ngi ko doon dund ci ñuy réclamer sax ku leen mën a jàppale ba jox leen dëkkuwaay boo xam ne mën nga ci dund bi ngay euh, déggee kàddu yooyu euh, ban yëg-yëg nga ci am grand. man euh, je crois que amoon naa ci amoon naa ci am na lu ma ci xamoon man parce que balaa loolu di am en moins de dix jours avant maire bi ñëw na ba fii ak xale yi ñëw seet si ma wax ma ko ne ma kat dañu Ablaye dañoo miraas kër ga. tiit xale yi li ñu am jox nañ ma ko kër gi ab Ablaye Mbaye dëkkoon ci laay ci laa bëgg pour seene ko ma ne ko ah ñun de am na fi ñu toll ndax gis nga suñu métier bi fi ñu toll liggéeyuñu waaye kenn ku nekk li nga mën nañ ko def boole ko ko ay nit ñoo xam ne kenn ku nekk nee naa ko mu dem ba foofu jaar fa bii amee bett na ma parce que man pour man man pour man maire bi dañ day seene dëkk fa avant après tabaski métti métti na ma lool. ma ko déglu aussi ça m'a fait vraiment mal ma xam ne loolu man personnellement man man maa ko waroon def parce que ku xam suma relation ak Ablaye Mbaye xam relation Ablaye Mbaye ak Pape Cheikh xam ne am na nu mu doon ñun ñoo waroon taxawaay taxawal boobu gàcce la ci ñun méttit la ci ñun loolu pour wax ko Sénégalais loolu amee ñu gis euh, ku mel ni oustaz Iran Ndao moo tax yàlla buy ñëw day ñëw rek ñu gis ni bi mu jógee taxawaay bi mu ci taxaw wax naa ko ci beneen télé ma ne ko loolu ñu ñoo ko waroon taxaw defalu defal defal na yàlla nag sax ñu ñoo ko waroon defar man Ablaye Mbaye ba ñuy ànd xamoon na Ablaye Mbaye yaayam te loolu yaay ji wax loolu mooy dëkk Ablaye Mbaye heure bii bu mosaa jot nii heure bii ñu jëm tabaski yaayam daf ma daan woo ma ànd ak Ablaye Mbaye mu ne ma pa pap maa ngi lay seeree ne Ablaye Mbaye mii lu ma lu ma soxla ci àdduna bëgg ko bu ko Ablaye Mbaye yégee faj ko waxuma nag Ablaye waxuma la moom yaayam ba papam ci boppam ma ne ko ba ma jàppee Ablaye Mbaye bu ma ko catoon dinaa ko gën a jàpp ndax li mu fonk ay waajuram kon lii Iran Ndao def ñun la ko defal ñu ko ci ñaanal ndax kuy defal yàlla yàlla du la bàyyi yàlla ko ko lebal euh, ker mu fay la guddi ngi ñaanal Iran ñu lay ñaanal bu wér a wér mm-hmm. yaa xam li nga bëgg te xam naa ne yokkute rek si nga nekk ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax yàlla taxawu la yàlla dolli la sutura dolli la jàmm dolli la sa yéene yi nga am ci si doomu aadama yi ak sénégalais yal na ko yàlla et motale le grand dem nañu fa euh, toog ki nga xamee ni mooy yaayu Ablaye Mbaye également rahmatullahi alayhi mu def ay seede yoo xam ne yu am solo la jëmale ko ci yéen. ni lépp loo xam ne taxawaay la bu ngeen waroo woon ak Ablaye yéen en tout cas yéen Pape et taxawu ngeen ci donc en dehors de vous aussi. Euh, est-ce que warul woon aussi musique jug euh, jàppale Ablaye mbay bi nga xamee ni génn na àdduna rawatina promesse yu bëree bëri defoon nañu ko ci ay musiciens yu bëri mën nañ ci cité ku mel ni Youssou Ndour yaakaar naa ñi ci defoon promesse que ni jàppale Laye Mbaye famille en tout cas ginnaaw bi nga xamee nii wuy ji na boromam ci la bokk est-ce que tamit amul leneen rek lu muy wane ci euh, manque de dimbalante boo xam ne am na ci ñi bootu ci musique parce que du kaaw la Ablaye Mbaye rek lañuy faral di déggee ci question euh, en tout cas wax yu demee nii wala kaa yu deme nii. waaw man damay damay dam fekk ci impôt si ci ci question boobu ñun bi Ablaye Mbaye gaañoo ñun la doon nekkal guddeeg bëccëg. Ablaye Mbaye bi mu gaañu ñun mënuñu sax jot mais dañu ne loolu jaru ko parce que nit moom day ak ay mbokkam Ablaye Mbaye bi mu gaañu ñu bari def nañu ay proposition ne dañuy def dañ def tar ñun de ci moyen bañ daan jàppale Ablaye Mbaye lañ daan jàppalante sax laay wax duma ko ñoo koy jàppale parce que suñu da daan da liggéey li mu daan liggéey ak ñun sax dañ ciy amaale comme moom ni mu doon amee liñ daan ànd ak moom ba tey jii bu may joué rakkam boobu ñu bokkal ndeeg bàyyi maam Kumba dafay ñëw bu ñëwee dama naan kii yaayam moomu ko dénk na ma dénk woon ab lay mbay képp ku ko mën a jàppale di ko jàppale su ma yeewoo xool rakk ji mu ne ma ah sama yaay kontaan na ma ne ko man de loolu laa lool laa bëggoon comme mu ngi koy def démb ci guddi laa mujj waxtaan ak yaayu ab lay mbay di remercier aussi fii ma toog parce que dama dañ ma woo démb ku ñuy wax par sàmba Diop résidence ne ma président Macky génne na njëgu xar yaay Ablaye mbay jaarale ko ci man noonu la ko dañ defee bi Ablaye mbay di dund ba léegi bi ma maire bi wooyee ma ne ko ah comme xar jóge na foofu ñëwaat ci yow xëy na lii ñuy wax nii information bi bu fay eggee président dina ko mën a faj waaye pour wax jàppalante ci musique du moom gisuma ko man gisuma jàppalante bi non non ñaa ngi gis yëpp ñu ngi xeex ci affaire SODAV ci SODAV parce que SODAV ni ñu yoree xaalisu musiciens yi xaalisu artistes yi du yoon ñu deplore ko mooy que dañ fa doon dem di wax ne xaalis bi SODAV dafa nul parce que BSDA bi mu fi nekkee artistes yi dañ daan feeku ñetti yoon y' a quatre bi mu fi jógee ba léegi artistes yi benn yoon la ñuy feeku ci at mi. par an waaw man man ak ñeneen ñu mel ni man barke démb la Nicolas meneen wax ni ba Sodaab toogee ba léegi feeku nu sasem Sodaab bi ñu commencé wax ji. coow li jóg ñu ñu dem ministère ministre bi woonu bi ñu ñëwee il était gars yi jiitu ko ne ko gars yi ay rebelle lañu daanaka bu ñu ñëwee daf ñu taf tafe fekk ne li ñu ko doon wax noonu le mois d'octobre mu dem moom Sodaaf gisal boppam moo ko bind les mu ngi si mu ngi si presse bi ngeen xoolee mu ngi ci ci ci ci ci internet bi mu mu ne mënuloo percevoir un milliard jël 700 millions yi dafa defee ko fonctionnement yow xaalisu jàmbur dañ la ko jox 700 milliards 700 millions nga jël 5 700 millions yi def ko def ko def ko def ko yow li ngay liggéeyee ministre bi moom ci boppam moom ne lii c'est inadmissible moom ma ko wax man waxuma ko. moom ministre de la culture. moom bii ma ko wax man waxuma ko bi bi mu ko waxee bañ gis dama ne kon comme moom moom li mu ci xam sax ñun xamuñu ko ci. xaalis ci jàmbur nga ciy recruter di si jël say mbokk xaalis ci jàmbur nga ciy def séminaire xaalis ci jàmbur nga ciy def formation xaalis ci jàmbur nga loué ci nga loué ci benn appartement ay bureau ci xaalis ci jàmbur bu ñu paree nga jël un milliard nga jël trois cent millions séddale ko artistes yi. ñu ne loolu lañ doon kaas si ñun xamuñu ko ci woon moom moo ko wax de. kon mu ngi ci li ñu doon wax beneen bi ñu toog ay quelque temps dégg na am na ay sàcc quittance ñoo xam ne ci biir Sodav lañu nekk dañuy def ay quittance di ko jaay seen biir yëkkati ko ba ñëpp na ana ñu ne ko nupp si suuf kenn amatul sud bi Sodav bii tey jii bu fekkoon ne baax na bari na li ñuy wax nii tey jii bu affaire bi ne ñoom ñooy ñoom ñooy def ñoom ñooy nekk défense artistes si mais ñoom il préfère enterrer les artistes parce que koo xam ne nii li nga am mu ngi koy lekk. li ma lay wax nii léegi léegi ça fait même pas une heure de temps mm-hmm. j'ai reçu benn benn SMS bu wax ne musiciens yi un milliard yi leen séddale kenn ku nekk cent vingt cinq mille nga am. ñun ñu ngi toog quatre mois xam nga loolu c'est de l'insulte loolu c'est honte loolu c'est c'est manque de respect la musicien bu toog quatre mois liggéeyul. nga woo ko jox ko mil gis nga gis nga même les non inscrits ñi nga xam ne binduñu leen ñoom ñu ëpp xaalis musiciens yi ñoom ñu ngi am 127500 ñun ñi nga xam ne ñoo leen di liggéeyloo ñu am cent 100 125000 injustice boobu ba kañ yow ka SODAV bi mu fi nekkee ba léegi amaguñu carte ñu ngi doog carte membre bi ñu ko waxee ñu ngi koy doog a def ñu naan déet ñu génne seen rapport 2019 ne li ñu liggéey 2019 collecté nañu plus de huit cent et quelques ñoom waa Soda. waaw jël cinq cent quarante millions yi ne mooy seen fonctionnement ñii kan la jël liggéeyal maanaam bu ñuy wax nii dañuy révolté wu li ñuy wax bu ñoom nañu dem xooli rapportu Soda est-ce que loolu am na ci àdduna. est-ce que ñooñu dinañ dimbale artistes yi seen bopp lañu fa nekkal xoolal ku toog ku toog ñaata ñaata mois liggéeyoo ñu ñu yëkkati cent vingt cinq mille jox la ña yow li nga liggéey ba eh, quatre yi loolu mooy. le les les les li ñu leen di wooyee les lan les les ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ñi nga xam ne Covid bi moo leen. Mm-hmm. moo leen moo tax liggéeyatuñu. moo tax liggéeyatuñu waaw. saa yu ñu ngi nii di di regroupé xool lan nañ war a décider ñu ngi dañuy war a daje ñu dañoo def benn collectif artistes yi jàngkat yi yeeg cinéma yi théâtre ñëpp dañuy daje parce que dafa am loo xam ne dafa war a doy loolu moo am actuellement. kon bu fekkee affaire ndimbal la. Hmm. non man man personnellement je ne compte pas ci ay grands yi. je ne compte pas hmm. non. yooyu moom ay waxu dëj la ay wax yooyu gars yi dañuy concert bay concert si dëj xam nga yooyu waxi dëj la nañu wax seen waxi dëj affaire bu dee ñëwee lépp dañu xam ne xam nga Sénégal la ngay wax dara nit ñi di la topp di la seetaan suba day ñëw moo tax kuy wax waxal loo waxal looy def ñun Ablaye Mbaye seq na moom lu dul bañ li ñu waxoon nag moom dañ ne ko dañu woon bu bu ñu fi jógee ab lay Mbaye même ñi mu doon àndal maxa mi nga xam ne moo ko daan yàpp du ko ànd ak moom. dama ko oo ba mu ñëw man na ko max kaay topp ma kaay ñëwaatal si groupe bi bu ñu demee lu ñu mos nga mos moom nga rakkam nga fekk foofu mu toog ñun loolu la ñuy liggéey lu ñu am bokk ko ba tey jii yaayam biig samedi passé rakkam lay mbay ndey kumba ñëw na soirée ma ne nañ ko lijjantal so jataay ba mu lijjanti fa xarum tabaski te noonu lañ ko doon defee ak Ablaye Mbaye. Ablaye mbay nekk naa ak ñun vendredi ñu joué concert samedi ñu joué gestor yu leen di mu gaañu kon kenn moo ñu mujj ci Ablaye Mbaye keroog ba Ablaye Mbaye gaañoo mënuñu ko tiim ku ñëkk ñëw ne moom la waaye moom moom ma tëdd xam na ñan la. waaw euh, seen bës site la boo xam ni lépp lu askan wi di laaj dañuy def suñu kemtalaayu kàttan ba indi ci ay leeral li ñu bari di laaj ci askan wi mooy euh, pourquoi pas ku mel nii ki nga xamee ni mooy euh, bu ñu ne musique Sénégal en cas kenn mënu koo bañ jiital mooy Youssou Ndour pourquoi réagir muy question boo xam ne duñu wax rek Youssou Ndour kese est-ce que ci musique bi ngeen nekk woon ko jege on peut dire xëy na après ba contrat am ak Ablaye mbay jeexee ci lu yàgg. Euh, bu yëgoon je veux dire que Pape et Cheikh comme ñi nga xam ne ay xaritu Ablaye mbay la woon yoo xam ni famille seede nañu ni ba léegi li leen warloo woon ak moom yéen a koy def ndax yaakaaroon ni bu ngeen ko contacté woon xëy na expliqué ko dina am nu mu réagir parce que loolu la ñëpp di laaj askan wi mooy ana Youssou Ndour. waaw man nag je ne vais pas répondre à la place de Youssou je crois que bu déggee lii moom dina mun a dinañ dinañ mun leen woo wala mu am fu mu taxaw répondre la question baa ngi nii. Euh, moom mooy yore réponse boobu ñun boog lu ñu waroon nag Ablaye Wade Ablaye Mbaye ñu ngi koy def ñu ngi ci def suñu kemt lay kattan ñu ngi jéem di am contact ak yaayam di am frère am ba mu bokkal ndey ak baay mu ngi nii ci suuf ba mu bokkal ndey ak waxuma la ba ak baay ñu ngi fii amuñu du ay parce que diw def naa def ko ñëwal ñun loolu loolu mooy sunu àdduna ñun bu ñu ànd ak nit dañuy ànd ak moom ba mu jeex ndax mënoon na nekk ñun Ablaye mbay toog suñu place ndax gënu gënuñu ab Ablaye mbay te yaakaar naa ne bu ñu demoon dina am taxawaay bii si ñun. très relation boobu la ñuy seq ak Ablaye Mbaye sequñu ko sequñu ko parce que diw def naa wala deful non ñun li ñu seq ak kañ seqal la ñu ko seq ak moom la ñu seq ak moom.